auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi daal leen jàmm seen chaîne YouTube Le Coran et ses secrets ñoo ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku ceen tey dañu andil mbokk yi secret ba am solo lool sax bu ñu jëlee ci suratul waaqixa tax boroom xamam yëpp dëppoo nañu nangu ni suratul waaqiya képp ku koy jàng sax chaque jour bés bu ne yàlla sunu borom dina la xëpp xewal ba di nga dund te doo aju si kenn di nga am sutura àddina ak sutura àllaaxira incha allah yonent bi sax daan digal saxaaba yi bu ñu xëyee ñuy jàng suratul waaqiya bés bu yàlla sàkk donte nag bu ko yonent bi digalee ay saxaaba daa mel ni digal na ko ummatu muhammad yëpp daa mel ni digal na ko mboolem jullit moo taxit tey rek ñu àndil leen benn rek ci ay secret secret ba am solo lool sax bu képp ko xam danga bëgg am wërsëg bëgg ubbee bëgg aaju bu faju ci baatin nag ci zaahir nga dund te doo aju ci kenn incha allah boo ko defee yàlla suñu borom dina la suturaal laata ñuy tàmbali waxtaan bi di leen ñaat rek bu leen fàttee abonné ci chaîne bi ba si cloche notification bi bu ko defee vidéo bu ñu mënti dugal rek ngeen bokk suñu ko jot yàlla yàlla fay te leen di fàttaliwaat rek boo leen ay laaj ngeen bind ko ci commentaire yi boo leen bëgg it ay secret yoo xam ne da ngeen bëgg ñu partage ko ak yéen ngeen bind ko ci commentaire yi dinañ leen tontu incha allah. leen di fàttaliwaat rek ngeen aimé vidéo bi partagé ko ndax yeneen mbokk mu ci mën cee jot incha allah mbokk yi secret bi jëlee nañ ko fóor ni képp ku ko def nga sellal ko saxal ko incha allahu rabbi li nga gis ay coppite yu ama am solo si sa dund incha allah secret bi nag dangay bind suratul waaxiya danga koy bind si limu quatorze fois boo ko mënul bind nga wut ku la ko bindal nga fay nit ndax bëri na nit yoo xam ne boo leen mën nañu ko bindal yu bindal ko si limu quatorze fois boo ko paree boole ko ak ndox nga di ko sangoo amul amul nombre fan nag danga koy sangoo ba saafara bi jeex bu jeexee nga wutaat ku la ko bindal nga defaraat ko saafara di ko sangoo boo ko saxalee incha allahu rabbi doo manqué xaalis sa dund yëpp dina ànd ak ay e wërsëg te do doy mukk te doo allah mbokk yi fii lañ yem ak yéen ba vidéo allah ñoo ngi leen di sante bu baax baax di leen gërëm di leen di yëgal rek ni kontaan nañu lool sax gis nañu yéen a ngi aimé vidéo bi gis nañu yéen a ngi abonné ci chaîne bi te yéen a ngi aussi partagé vidéo yi ndax yeneen mbokk jullit yi mën see jot. di leen di ñaanal gudd fan ak wér ak yee xewal yu yaatoo yaatu incha allah di leen di fàtteluwaat rek ba leen a amee ay laaj ngeen bind ko ci commentaire yi ba leen bëggee aussi ay secret yoo xam ne da ngeen bëgg ñu partager ko ak ngeen bind ko ci commentaire yi te bu leen fàttee abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi partager ko ndax daa am solo loolu sax moo ñi may doole yàlla leen yàlla sunu borom fay wasalaam.